su ko defee lépp lu ñu fi génnee rek mu mën a agsi ci yow nga mën koo jëfandikoo suñu waxtaanu tey mi ngi jëm ci makki sàll laaye biir gi nga xam ni moo war ci diggante jullit ak moroomam nit ak dëkkandoom nit ak mbokkam man nag li may wax du lu ma tëdd gént ko du loo xam ne lii damay wax sax ne sama yaram da koo yëg waaye nit laa di xalaat di jëfandikoo sama xel te li ma sama xel jox mooy li xew baaxul fi mu toll baaxul waaye fi mu jëm moo yées te bu ñuy wax tey jii naan boroom caq du xeex ak borom baatu neen wala du bëreeg borom baatu neen yaakaar naa ne ki tax ñuy wax mooy Macky Sall il a tout à perdre loolu ñuy wax maanaam lépp loo xam ne lii mi ngi koy def rek lu ne mën na ko cee fekk bët nag la koy fat du ko gis rawatina nag boo xamee ne yaa ngi ci wetu nit ñoo xam ne ñi yaa ñu ko nettali woon day ca jamono yi nga xamee ne yaa ngi ab lay Wade bul déglu ñi nga xam ne ñi saa yu mettee ñooy bokk ci ñiy jëkk a daw ñi nga xam ni ñoom ak pal dong la ñuy ci sa wet loolu li nga ci war a am firnde bu wér cëng yow mooy ña nekkoon ci Abdoulaye Wade ba mu daanoo suñ dee fukk daanaka juróom-ñaar ya daw nañu ñëw ci yow kon nit ñi gëmuñu kenn seen bopp lañu gëm rawatina politicien boo yaakaaree nekk nag nguur ak doole ak i pexe loolu day tax nit ki nekk à l'abri maanaam mucc loolu ay nax la moom mooy gént ndax fii ci biir Afrique laa yam duma dem feneen njiiti réew yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekkoon di lëmbe di jaay doole ak di foqati xaqi doomu aadama yi naagu woon ci seen kàttan ak seeni pexe moo taxoon ñuy def lu leen neex loolu nag yaakaar naa ne li nga ci xam bari na liir nga ko gis nga ko am na ci loo fekke ci sag dund kon li ma lay wax mooy il ne jamais trop tard pour se ressaisir ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci kaso yi nga tëj leen su ma nga tëj leen nag mooy qui peut le plus peut le moins yaa ko waxoon waxaluma la ko yaa jël sa say conco teg ko ci ay dossier kon dañuy gëm ne kon ku ñu fi tëj rek yawa waaye rawatina nag ba nga xamee ne fii kenn kuy def loo ko santul amu fi kenn ñemew ko ci réew mi du ministre du capitaine gendarmerie wala commandant gendarmerie du police amu ci ñoom kenn kuy def lu la ump suba ba ngoon kon dañuy jàpp ne rek lépp yow man nag ànduma ci ñaan yi nit ñi di ñaan am na feebar boo xam ne bii walla yaasu billah moom la ñu wax gumba tax lu su mum bug mun um yun yàlla am na ñum ko misaale mooy yow luñ la mën a won doo ko gis loo déggit du dugg ci sam nopp du dugg ci sam xel ne pat ne kamuus di def li ngay def yaakaar ne day jur jàmm loolu moom nax sa bopp la gis naa mbooloo mu bare bare bare di ay kàngam kenn du leen ko nattableel taxaw nañu ñoom def seen pétition wax la ne la lii baaxul gis naa sax sa porte parole di ko ton di leen tontu di bind mel na moom kon porte parole lu Macky Sall la waaye du porte parole lu gouvernement bi te ñoom ñi bind binduñu gouvernement bi yow lañu bind kon porte parole bi wàcc na la mu waroon a def kon man li ma lay xelal mooy ñooñu di say nawle donte nag man ka ko jiite sa daxta moom moog yeneen polici politiciens yi laa yemle je les prends pas au sérieux je les prends pas au sérieux ñeneen ñi fi nekk ñëpp nonu ku ci wax rek léeg-léeg am na lu mu nal am na lu mu ñal am na lu muy bàyyi xel dégg naa it am na sax gis naa vidéo dégguma kàddu yi ca bari ma gis sëñ Muntaxa ma ngay jàng ci tàndarma potub tàndarma la am na ñuy tilimal tàndarma janaan tàndarma ju ñuul tàndarma jooju mooy tàndarma ji gën ci tàndarma yi ku dem màkk xam nga ko ajuwa la tudd na munawwara nee ñu moo doon tàndarbay yonent bi kon bi ñuy tànn kon tànn nañu ba gën ca tàndarma ya nee ñu yónnee na ci Ousmane Sonko pour mu bàyyi grève bi grève booba su ko bàyyee condition ba mooy wax nañu wax naag ab Macky Sall pour mu libérer ko man théâtre laa gis su fekkee ne loolu ñu wax lépp noonu la deme man théâtre laa gis ndax nag mënees na ko wax mu bàyyi ay kooku moom sañ ngaa ñaan ki ñuy ñaanit sañ naa maye sañ naa bañ waaye su dee mënees na ko wax mu bàyyi bàyyi ci loo xam ne lii du coobarey boppam théâtre lay doon coobarey boppam rek parce que moo xam kombaam lu ci nekk ak lu ko ci nekkal ak lu ci dalum xelam kon yaakaar naa ne su dee dañuy tëb rek ne ko bàyyil mu bàyyi kon mënoon naa bañ a tàmbali bi ci topp mooy su fekkee ne dañu ko jàpp mën koo bàyyi rek ci kaw sëñ mun moo ko ñaan kon théâtre am na it nag kon léegi koy ñi nga xam dañoo tëdd ci kaso yépp nañu grève de la fin ñoomit ñu ñaan leen ñu bàyyi ndax ñu bàyyi leen ay nit daal dañu naan dañoo tooñ dañ leen di topp na leen yoon topp ba fu mu yem wala ñu bu leen kenn bundu xataal erreur judiciaire bu amoon sax buñ ko toppee tuuti war nañoo kooka bàyyi ko boole ko notifié ko àddina yépp xam ne dañ koo tooñ man loolu laa gëm waaye it jës yépp pour man théâtre la le Sénégal <laughs> théâtre yi sax dañuy baisser les rideaux théâtre yi dañuy dem ba théâtre ba jeex ñu xam ne lu ca dolli kuwaat du am xorom ñu yamale ko fa bi ñuy xale daan nañ seetaan au théâtre ce bu rideau ya wàccee mooy wax ja jeex na jóg leen ngeen tëri waaye Sénégal ci théâtre bu dul jeex lañu dëkk kon sëñ Mountakha mën na wax kàddoom yu rafet ne na dem nañ dem wax ko ne ko mu bàyyi grève bi loolu kuy wax lu rafet mën nga ko wax waaye moom nag mooy problème am nag moo xam nag moom la ko taxoon di grève ndax dem ba jeexal pexe tumuranke gisoo nday gisoo baay gisoo kenn ku la taxaw ca say àq yañ doon jalgati nañ la delloo say àq bu fekkee ne loolu daal la jàpp naa ne kooku kenn waru laa wax ne la bàyyil ngay bàyyi déedéet dangay gëm ne kon say àq daal moom lañ la moom moo taxoon ngay xeex delloo guñ la ko nañ la ko delloo saañ la ko delloo nga bàyyi point final buñ ko bàyyee nag ci kaw ay wax dong nag mooy kon dañ koo jàppoon ci lu dul dëgg du yoon dañ koo jàppoon ci lu dul dëgg du yoon te loolu moo gën a sax ci sama xel mii man ndax topp nit ñaari at di ko jiiñ dara xëy benn bés ne ko loola kat defoo ko waaye def nga beneen boobu lañ la jàppee nga ne dañ koy tëj ñaari at ba tey théâtre laa gis ko defee nag mbokk yi nañu bàyyi suñu xel yi ñuy foowe waxinu xale yi ñun duñu ay dof te ba jàng jotee jàng nañu wala ñu war a jàng am nañu xel moo xam ne mii dañ koy jëfandikoo te gis nga fi mu ne nii lu ngeen nas rek xaw na ñoo xam genn wàll ga di lijjanti li ci des asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.